dans les meilleurs délais xam nga waxul bref délai meilleur délai la wax Manam date bi gën il faut savoir lire français aussi communication ngay jàng. bref la wax wala meilleur. meilleur meilleur naa communiqué bi. dans les meilleurs délais. D'accord, accord mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko tegaat fi sax ñu xol ko su fekkee ne bëgg nañ ko gis dans les meilleurs délais xam nga su ne bref délai ou bien dans l'immédiat dañuy xam ne léegi léegi la mais dans les meilleurs délais Macky nee na man ñii kat mënuma jël date bi yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg a dem élection yéen ñi doon jooy dañuy bafuy seen ak ak seen yelleef kaay leen ñu toog ñu waxtaan ngeen jàpp date ñu trouver ci consensus muy dialogue bërki démb président Macky Sall woote dialogue gisuñu leen ci lu tax teewu leen ci dialogue boobu. waaw ah, mais y a pas de dialogue. mais consensus la.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 motax ngeen bok doon candidat ba nit ñi di leen tam dëmm di leen tam ay traite ba seen ak ñi nga tuddee waa kër Bob Marley muy waa kër Ousmane Sonko neexatul barki dem ba gis naa la ngeen di sànnante ay xeer say batas ma <laughs> ok euh, bu ñu ne dialogue hmm. mu nekk lu concerné affaire présidentielle dafa am benn temps bu ñu koy def pour régler ko ngir buñ ci excès duñu am benn problème on est d'accord on est d'accord ñu def boobu hmm. je pense que tay on a doon dialogue dafa am ño xamné ne rek dialogue 19 candidats retenus parce que mbir mi qui, la concerné concerné wul kenen parce que yow ci ki nga parce que ñom bañuy jël dossier diko déposer mais demuñu tribunalu Dakar wala dem conseil constitutionnel déposé ko. Ah conseil constitutionnel invalidé non j'arrive projet de loi bu PDS non pour ñu reporter élection chose, <laughs> yemul kese ci lolé dañ ci bolé aussi les candidats spoliés mais xam nga spolié recalé. ñom ñep instant yi. ñoy bokk ben panier bi ñuy dem tok xaar. parce que conseil constitutionnel bi ñep jublu néna na. bokku ñu ñi ñoy bokk. mais su ñom bu faté né ne tey jii moom fal. alpha su ñom légui léegi ñu ñu ñu conseil constitutionnel bokku ñu ñi ñoo wara bokk alors que ñu ñu bokku ñu suñ ko tegee ci yoon ci justice dañu waroon bokk ñi ñi naan ñooy bokk suñ ko tegee ci yoon waruñu woon bokk est-ce que dañu war a dem ci élection noonu pourquoi cette précipitation loolu la sénégalais di laaj. su fekkee ne dañ ko teg ci justice loolu laa dégg léegi ci say wax. kan moo génnee décision bi du justice. mais justice day jum du alxuraan du bible. mais mais bien sûr dafay jum. tribunal yépp dañuy jum mais am nañ ay moyens yu nga xamante ni après nit ki su paree loolu lay xoolee su fekkee ne nag conseil constitutionnel bi ñu ne moom moo gën a kawe ci tribunal yépp moom moo wax lii te moom bu xasee ba wax lii ay mbiram. du delu ginnaaw du rétroactif. donc mom moko wax. mais rew bu amul justice c'est pas la peine ñuy dem léegi ñooñu mom conseil constitutionnel boobu ñu fi yeewu moo ne len man 19 yi la jël donte bu 1 million ngeen won défé na naa bu ñuy wootee dialogue parce que je reviens parce que sujet bi dialogue bi la. dialogue bi laa jël. su ñuy dialogue conseil constitutionnel man je me dis que dafa dimbali président de la république donte bu dee daf ko renvoyer patate ah mais def na ci effort ba xolli der bi mhm. xaru ko mu yónnee waat ko ko moom mhm. parce que président moo am prérogative fixé date élection mais qui war fixer date datu Car kan la moom élection yi moom beaucoup ci waaw bokku ci moo tax mu bëgg waxtaan ak yéen <laughs> non non man bëgguma waxtaan bi sax bëgguma ko di dégg. mais da ngeen waroon waxtaan non non amul lu ñuy waxtaan. yéen ban date benn dafa posé date bi. yéen ban date ngeen bëggoon jàpp. dafa dafa posé ko. non attends gis nga gis nga conseil constitutionnel dafa dimbali président de la république gis nga président de la république bu ko conseil constitutionnel renvoyé waté bal bi xam nga fan la conseil constitutionnel waxé hmm. pour xamal ko ne 2 avril bi mandaam day jeex te am nañ temps te jubaguñu 25 février donc te bii nii mënul nekk mën nañ am nañu ko organiser bi nga xam ne du génn ci dans les délais il traîne les pieds parce que il veut pas d'élection il veut pas d'élection te daf ko ko jaral xam nga lu mu jaral ko un président de la république nommer ce premier ministre def ko candidat bëggoo élection yi am moom ca boppam nga sëf ko accusation comme quoi que moom mooy accuser conseil constitutionnel nga conseil des ministres di ko euh, renouveler sa confiance bi nga am si moom mon cher Tange, honnêtement, quoi qu'on dise, notre cher Macky Sall là, waxul dara ci lu jëm ci affaire de ay élections parce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer. ça c'est Alpha Diouf qui l'a dit. Et je l'assume parce que le président de toog Doyle n'a naa le 2 avril con man waxoon na laay fiyewu nee na doyal na sëkk le 2 avril conseil constitutionnel dina xool nu muy def man boobu laa mais nag jàppal Alpha Alpha tey seen ñàkk présence ci conseil ci dialogue boobu je crois que tey jël nañ fa yoo xam yoo xamante ni concerné na leen te nee nañu ci 19 candidats yi nga wax ñoo waroon dem te ñaar ñoo ca teew 17 teewuñu ca nee nañu dañuy maintenir seen candidature mais dañuy saytuwaat borom ñaari nationalité yi ak ñu yoroon état bi fit léegi gis leen ni que ngeen demoon toog ca conseil ca dialogue boobu proposer cette date avant le 2 avril ñu xool consensus bi ndax du yéen a koy jël comme 19 ngeen est-ce que gënul woon. ñun dafa am ku ñuy xool parce que élection bu tollee dem ba foofu ki nga xamanteni moy Macky Sall ñu né moy yor khatim bi nga xamanteni ni convoquer corps électoral bi ah. ñom ñëpp ñun déglotuñ leen. parce que li tax déglootuñ parce que waratuñ leen déglu parce que ñom dañ ne leen rek organiser leen élection. d'accord conseil constitutionnel ñun ca moom la ñuy dem. Macky Sall bu ko conseil constitutionnel renvoyé nek mu jël date parce que mom mo jël date mom mo wara jël date mu arrêté convoquer le con euh, corps électoral mom moom wara def mom mo wara def lolu mo wara convoquer corps électoral non mais mais mais j'arrive Macky Sall suñu ko sukkandikoo ci constitution ak loi le 25 février kese la mënoon jël su weesoo 25 février su jëlee benen date violé na la loi ah, du violé la loi xam nga lutax pourquoi xam nga lutax tax nañu revenir à tout ci li nga xamanteni ni le conseil constitutionnel am ko. muy la élection bi dé ci mois de décembre euh, février 25 février bi. mënul nek waye jéem ko tëggaat. waaw ah, mooy violer loi bi. non non non mon conseil constitutionnel mo wax il parle de la ah, constitution. il non non il viole pas. Ah. il viole pas. n'oublie pas c'est le conseil constitutionnel qui parle. c'est pas c'est pas un autre organe qui parle. c'est le conseil constitutionnel conseil conseil en matière électorale, en matière élection conseil constitutionnel l'homme mu la ci wax téere la dara du dañ mais Macky pour mu pour mu Faut date nous mu convoquer collège électoral mu dem assemblée nationale du voté ko. mais collège mënul jàpp corps électoral boobu. bu fekkee ne Macky mën na convoquer. convoqué. day bàyyi xel esprit bi conseil constitutionnel waxee ak moom. pour wan ko ne yow yaa ngi ci ay temps. kon mën nga ko organiser. su doon dañuy waxtaan. te Macky bëgg ñëpp waxtaan. Hmm. Ni lay waxtaanal les 19 d'abord je commence par le président Khalifa Sall ma toog ak ñom ñep ma toog ak li nga xamanteni ci conseil constitutionnel la jóge amul kenen ñooñu la ñi nga xamanteni nak moy ñi nga xamné dañu neutre on pourrait les inviter ñu leen conseil constitutionnel li la wax té li warna am parce que ndax Sénégal warul am li légui am ngeen 21 jours pour campagne diggante premier tour deuxième tour nangami jour la kaay leen ñu xool nu ñu ko tëggee hmm. ngeen wàññi fii ñu wàññi fii mais pour wan ne la bëggul élection hmm. il commence par les candidats recalés un recalé boko ko un gars quelqu'un qui est apte hmm. du ñu bok a bokk intérêt yi bokkuñu. dëgg la loolu moo xew. légui ci sa bir wax da nga développer nga ne kaay leen ñu xool ñu wàññi fii dugal fi loolu mën na nekk waxtaan. sama sama sama hypothèse la rek. loolu mo len arrangé ci waxtan dama lay jox ben hypothèse ñaari hypothèse dama gis ñu bëri tey ñi nga xamante ni dem élection coûte que coûte arrangé na leen dañu jël exemple ci Coupe d'Afrique le Sénégal a été éliminé par la Côte d'Ivoire en huitième de finale ñu accusé arbitre bi dafa waroon dem VAR demul VAR te wut compétition bi continue na am nañu am nañu joxe hypothèse boobu. boobu hypothèse moom la sax. eggali voilà d'accord parce que ça arrange certains. Ahmed Khalifa Niass aussi dafa joxe benn hypothèse <laughs> nee na julli yàlla nee na ndox moo koy defar pour nga mën a julli da nga war a laab set te pour nga laab set foog nga am ndox pour sangu set jàpp nangu ñëpp nangu ko nee na julli boobu tamit lenn moo koy yàq maanaam. njàpp lu toj njàpp lu toj lan mooy toj njàpp maanaam nga tuur ndox wala dem ginnaaw kër wala nga ngelawal loolu su xasee ba am est-ce que yàlla dafa ne garaawul nañu continuer julli bi après ñu rattrapé ko da ngay delluwaat. defaraat julli bi pour nga defaraat julli bi foog nga dem wuti ji ndox lu tax tey hypothèse Ahmed Khalifa Niass arrangé wu leen hypothèse Coupe d'Afrique bi arrangé leen alors que la Coupe d'Afrique n'est pas une élection présidentielle une élection présidentielle c'est le rendez-vous du peuple avec un homme qui définit des programmes qui définit des solutions pour l'avenir de ce pays durant un mandat très bien déterminé kon Coupe d'Afrique ak li du ben té li fiñu waron dem ci élection yoy muy julli ba julli ba dañu amoon ndox bu ko waroon defar ndox bi maanaam mooy lan mooy conseil constitutionnel jàpp nañu ba pare ba 19 candidats yi taxaw ci biir 19 candidats yi bu ñu taxawee am kenn ko ci tour ndox kan moo ci tour ndox Rose dañu tour ndox est-ce que dañu war a continuer wala dañu war dem wuti jiwaat ndox jàpp pare defar julli. waaw di ko ñaanal suñu wayjur boobu di Ahmed Khalifa Niass. Mhm. ñu gis ay position yi muy am. tout le temps mais d'accord nga li mu wax yéen a maanaam. tout le temps non déglu naa ko. Mhm. déglu naa ko. parfois dañ koy jàppee comédien mais parfois mu wax lu am yoonu maanaam. Mm, bon neex a dégg déglu naa ko bi mën ko dégg. bon déglu naa ko mhm. man Ahmed Khalifa Niass di ko ñaanal yàlla may ko wér. parce que am na yenn genre nit yoo xam ne di leen fii di faral di gis lu am solo la te moom daf ci bokk. Senghor Abdou Diouf sama xol laa ko tibbee yàlla na ko yàlla may wér. yàlla yàlla yàlla yàlla na yàlla na ko yàlla may wér. Amadou Ba. Euh, gis nga mon cher Tange exemple car, exemple Julie, ah. exemple Dao, exemple Yoyep, ce n'est que des exemples c'est bien mais de- veux dem élection le je ne ma wax dëgg yàlla feddaliwaat naa bokkuma ci candidat yi sama mandat 2 avril lay jeex mu toog démb ma gis gars yi di naan cinéma lay def théâtre lay joué ne man dama am cër ci Macky Sall. moo tax damay réservé wu. mais maa ngi koy may nag ba 2 avril de. <laughs> non parce que dama bëgg a ak moom. non da ngeen ne bëggul dem te mënu dana dañuy clair ak moom. Ah. man 2 avril. Ah. man yeeweeku naa ak Macky Sall. naa ak moom.